أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom na ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci xisasul anbiya nu toll ci qissatu suleymaan alayhi salaam tey ñuy jël ñaareelu tomb bi mooy tasxiirul jinn li suleymaan alayhi salaam dars passé ñoo ngi doon wax lenn ci ay xéewal ay ngëneel yu sunu boroom subhaanahu wa taala defal suleymaan bokkoon na ci xéewal yooyu suleymaan dégg làkku picc yi ak rabu àll yi tey noo ngi jël ñaareel yooyu ci xéewal yi ko yàlla jagleel defal ko ko mooy tasxiirul jinn li suleymaan alayhi salaam yàlla daf ko tàggatal jinn yi jinne yoo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala wax na lakka ana lan la leen suleymaan di doyee borom bi ne wa min alchayatin man yaxuusuuna lahu wa yacmaluuna amalan duna zalik wa kunna lahu wa kunna lahum xaafizin borom bi ne walchayatin kulla bannaain wa gawaas aaya bu njëkk ba ma ngi ca suratu naml aaya 16 ñaareelu aaya bi mu ngi ci suratul anbiya aaya 82 wala aaya bu njëkk bi deuxième aaya bi mooy aaya 82 moo nekk suratul anbiya beneen bi moo nekk suratu sadd aaya 37 sunu borom ne bokk naa ci xéewal yi ma defal Suleymaan ay seytaane yoo xam ne dañ koy liggéey ci wàllu tabax ñooñu tabax kese la leen Suleymaan di doy tabax waaye tabax yoo xam ne alhaila tabax yu rëy la yoo xam ne doomu aadama dina lott ci tabax ko foog machine walla mbir mu am doole comme jinne nag ci mbindeef yi am doole la moo tax yàlla jagleel ko Suleymaan ñu koy tabaxal tabax yooyu mu ne bokk na ci almaharib mooy mihrab comme jàkk yi mihrab yi ngeen di gis wala soxoroor yi noonu muy rëyee xam ngeen ne am na ci yoo xam ne doomu aadama dina lott defar ko il faut machine doomu aadama liggéey ak leneen loolu moo ko ci dimbali mu ne wa tamasil ak ay estati yoo xam ne dañoo am doole dañoo rëy seen ponkalaay seen diisaay il faut machine wala rek lu mel ne seytaan xam ngeen ne tey ah.
ma ne jinne wala seytaan.
waaw jinne wala seytaane parce que jinne jinne moo jur seytaane comme ni aadama juree doomu aadama yi jinne moo jur seytaan comme ni aadama nekkee abul bashar. léegi nag mu des ci seen biir ña ca baax dañuy reste nekk jinne su tuddee seytaane nag mu ngi mel na ñu ne yéeféer ak jullit yéeféer jullit nit la jullit nit la ñoom ñaar ñëpp aadama mooy seen baay mais la moo tax kii nekk yéeféer mooy mooy nag gis nga léegi mu ngi am détail détail ci seen biir da ngay gis ci ci nit ñi am na yéeféer am na naafeq am na mushrik ñoom tamit ci ñoom noonu la mel seytaan maarit ah seen tur yooyu saxar ifrit da ngay dégg ca suleymaan saar bi nekk ifritun min al jinn tur la
léegi comme jinne yu baax ñooy liggéey Souleymane wala ay seytaan di- ñu baax ña ngi bon ñi ñoom ñëpp a doon waaw léegi moo ngi ñëw ci darsa bi mu leer borom bi mu ne wa min ash-shayatin am na ci seytaane yoo xam ne man yaxuusuuna lahu ñoo koy nuural biir géej am na ay mbell or jama ay xeer yooyu ngeen dégg tey ñu naan zirk xaw ma zirko xaw ma ah waaw yooyu noonu xeer yooyu wala jama boobu wala or boobu wala yeneen façon jinne yooyu ñooy nuur ba ndox mi jeex ñu faral ko xeer yooyu wala tibbal ko ci or boobu wala jama boobu daal ko koy indil su ko defee moom su tabaxee ba pare moom lay décorer décoration yi or boobu la koy décorer wa yamaluuna amalan duna zalik am na yeneen yoo xam ne liggéeyuñ du tabax ñoo ñu ngi ci côté yeneen leneen lañ koy liggéeyal yàlla nee na ñaari côté yi yëpp nag wa kunna lahum xaafizin man yàlla maa leen doon wattu ndax am na ci ay saay-saay moo tax bàyyi moo ko moom Suleymaan ak ginne yi man yàlla maa ko tàggatal mbir yi ba pare wa kunna lahum xaafizin man yàlla maa ko ko doon wattul ci beneen aaya bi mu ne washayatin kulla bannain wa gawaas yàlla nee na tàggatal naa Suleymaan ay seytaan yoo xam ne dañ koy tabaxal yenn yi yenn yi ñoom duñ tabax waaye lan mooy seen mbir mooy nuur dem géej indil ko lu mu soxla wala tasaaroo ci àdduna bi indil ko lu mu bëgg ñooñu lool rek wax naa leen fi Souleymane dooma mus na feebar ay at ay ati ati at doom ji feebar ñuy wër lu ko faj xamuñu ko xool Souleymane ni mu amee kattan ni nguuram gi rée bi ñuy commencé darsi bi waxoon naa leen ne ñeenti nit ñoo mës a jiite àdduna ñeenti nit Macky Sall lan la jiite
Sénégal Sénégal aha ñooñu nag àdduna bi yëpp lañ jiite àdduna bi ñaar ñi ay jullit lañ ñaar ñi ay yéeféer lañ ñaari jullit yi moo doon kan ak kan
Souleymane Souleymane
Zulqarnayn ak Zulqarnayni ñaari yéeféer yi pourtant dars passé la woon xaw ma dars bu le passé ci kaw waaw waaw am na ñoo xam ne ci seytaane yi yàlla tàggatal Souleymane ñoom tabax rek ñeneen ñi moom féey biir géej mu ne minhum ma huwa mustaamal fil abniya daf leen jël xaaj leen ay groupe ñii ñooy tabax tabax yu mag yooyu tabax yu ngand yi ñii ñoo koy defal estati yi ñii ñoo koy defal cin yu ngand yoo xam ne dafay mel ni piscine ànd ak seeni mbalka wala ay euh, salle de bain yooyu ñu nekk ñu ci- ñu koy sango ay beñuwaar yoo xam ne dafa ngande ba fukki nit xëj nañ ci sunu borom subhanahu wa taala ne Souleymane maa ko tàggataloon ñu ko defaloon ak ay cin yoo xam ne cin yi daanaka mën naa togg tonub ceeb moo tax Souleymane ba mu nee yàlla bàyyi ma ma dundal àdduna bi at yàlla mu ne ay mënoo ko mu ne yàlla bàyyi ma ma dundal àdduna bi weer yàlla mu ne ko Souleymane mënoo ko mu ne yàlla bàyyi ma ma dundal àdduna bi ñetti fan yàlla ne Souleymane mënoo ko mu ne yàlla bàyyil ma dundal leen benn fan yàlla mu ne ko mënoo ko may essayel Souleymane jël 4 kilomètres carré mu togg ko ay cin ay lekk bi mu paree mu teg taabul yi teg kuddu yi yàlla mu ne ko wooteel jaami nañ ñëw lekk mu ne jaami yàlla yi te yàlla du leen di dundal man maa leen di dundal ñëw leen ngeen lekk benn benn mbindeef moo génn ci géej gi rek daa di lekk lépp kudd yeeg bool yeeg taabal yeeg lépp mu raatale ko lekk ko ba pare ne ko Suleymaan ragalal yàlla ci man benn bii nga ma jox yàlla ñaar la ma doon jox te yow benn nga ma jox te suuraguma te yow tey yaa tax yàlla du ma jox te ñeneen ñi lekk guñu kenn dong moo lekk te nee na suuragul yàlla mu ne ko Suleymaan gis nga lu ma la waxoon mënoo man maa mën lu tax wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizqaha doomu aadama dukkat daaba lépp luy dukkat ci àdduna waxuma nit de lépp lu am ruu di di dund yàlla moo lay dundal ak foo mën a nekk mu ne sunu borom subhanahu wa taala moo tàggatal Suleymaan loolu jinne yi di ko defal am na ci yoo xam ne liggéey yooyu dañoo métti ba doomu aadama du ko mën moo tax yàlla subhanahu wa taala indil ko jinne yooyu tàggatal ko ko ba pare di ko ko aaral am na ci jinne yoo xam ne dañuy liggéey forcement wa axarin muqarrinina fil aswad loolu mu nga ca sadd aya 38 yàlla am na ci yàlla nee na am na ci jinne yoo xam ne ni ñuy ni ñuy ni ñuy jàppee nit def ko travaux forcés seene ñaari tànk yi ah seene ndigg li muy li muy liggéey lu tax doomu aadama bu ñu ko defee travaux forcés ñu seene ñaari tànk yi seene ndigg li lu tax nii la nii la Souleymane def jàpp jinne yi seene leen ba pare yor fil courant ñuy liggéey fal force nii am na ñeen ñoo xam ne ñoom dañu nangu di liggéey ñoo ñooy ña baax ña ñu bon ñi nag dañ leen a yeew ba pare ñuy liggéey ndax xam nañ ne ñi ay bandi lañ suñ leen deful ni duñ liggéey mu ne dañ leen a seene boole ci ay kànnaar lu tax ndax ay jinne yu seytaane yu féttërlu lañ dañuy lànk duñ liggéey suñu borom waxaat ba tey ci beneen saar suratu saba mu ne wa min al jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbihi am na ci jinne yoo xam ne ñoom dañuy liggéeyal Suleymaan lu tax ñu koy liggéeyal yàlla moo leen jox ndigal ne leen toog leen ci wetu Suleymaan ngeen liggéeyal ba tax keroog bu mu soxlaa si siisu Bilqiis dafa ne jinne yi jinne yooyu escorte bi kan moo may indil siis bi kenn ko ne man mën naa ko indi balaa ngay jóg fii nga toog mu ne ko loolu dafa yàgg wala fii ma toog balaa may jóg ma indi siis bi mu ne ko loolu daa yàgg keneen ki ne ko man mun naa ko indi boo xoolee ci kaw balaa ngay xool suuf ma indi ko mu ne ko loolu dafa yàgg keneen ki ne ko diggante tarfatal ay ni mun naa ko indi mu ne ko anam mu ne moo ngi nii indi naa sees bi moo ngi nii kon kooku naka naka la mun a gaawee mu ne ko moo ngi nii indi naa ko allahu akbar sunu borom ne moom yàlla tabaraka wa taala moo tàggatal sa xaralagul jinn moo ko tàggatal jinn yi mu ne jinn nag bu ngeen bëggee xam mooy lan mooy waladu iblis mooy doomu iblis iblis moo jur jinne yi kama anna al insan min waladi aadam doomu aadama kan moo ko jur aadama noonu la jinne yi juddoowoo ci iblis iblis mooy seen wayjur mu ne am na ci jinne yi mu'min am na ci ay jullit ci jinne yi jàngeen ci alquran ci suratul jinn wa anna minna almuslimuuna wa minna alqasitun mu ne wa min haulaai wa haulaai mu'min wa haulaai shuraka fi sawaab wal iqaab mu ne am na ci yoo xam ne ay yéeféer lañ ni yee di amee tiyaaba yee noonu la ñuy amee mbugal mu ne yi nga xam ne gëm nañ ci yàlla loolu yàlla moo leen ko baaxee yi nga xam ne ay yéeféer lañ mooy seytaane ya féttërlu ñoom ñoo nekk ay yéeféer borom bi ne ci seytaane yooyu nga xam ne dañoo féttiirlu wa man yaziq minhum an amrina wa man ya'dil min al jinni an amrina lahu wa yakhruju minhum an taa nuziquhu min azabi sa'ir yàlla mu ne jinne yi moom duma leen lebal sax bépp bu ci weddi sama ndigal rek ma mbugal la ci saase jamono jooju ñuy liggéeyal Suleymaan bu ci weddi li la yàlla wax rek mbugal mi dal moo tax gis nga Suleymaan bi muy tabax baytul maqdis pour yàlla woon ne jinne yi xamuñu kumpa Suleymaan dafa taxaw yor yara yor kaanam Suleymaan dee na bu yàgg max mi ñëw dugg ci bant bi ba max ko ba bant bi di damm Suleymaan di doog a daanu jinne yi di doog a jël indépendance ama benn ñibbi jinne bu ñeme woon daw sunu borom mu ne jinne yi yooyu nga xam ne ñoo doon liggéeyal Suleymaan bépp jinne boo xam ne da nga cee féttéerlu lànk man yàlla maa lay mbugal mbugal moo xam ne da lay làkk mu ne yaamaluuna lahu ma yasha dañ ko doon liggéeyal lu ko neex lu ko neex rek ñu liggéeyal ko ko lu ko neex min al maharib ci ay mihrab mooy sooroor yi ngeen di gis ak temple yu ngand yi wa tamasil ak ay estati loolu lañ ko doon liggéeyal moom Suleymaan mu ne amma maharib fa hiyal masajid mu ne mooy jàkka yi gis nga moo tax ñu ko doon tasal Jérusalem amma tamasil fa hiya as-suur wa kanat min nuhaas nee na ñu ngi ko doon defare përëm moo tax jinne yi ñoo daan dem géej xuus wax naa leen sànq ne amoon na doom bu feebar doom ji ñu ut garab ba sonn mënuñu ko faj mu dajale jinne yi mu ne yéen mun jaaxle yéen mun ngeen dem fu nekk ci àdduna lu nekk mun ngeen ma koo indil sama doom mu ngi feebar mun leen koo faj jinne yi ne ko daal ñun daal amuñu ci pexe kii daal kenn doong lañ yaakaar ci moom ne xam na lu ko jot benn jinne la jinne bi at bu nekk benn yoon lay génn benn yoon lay génn mu nga ca géeju sàngam ca digg géej ga foofu la dëkk at bu nekk benn yoon lay génn mu ne dem leen ngeen taxaw foofu ngeen xaar ko bu génnee ngeen jàppal ma ko indi ko jinne yi dem monte garde xoolal at benn at benn yoon lay génn jinne yi di ko xaar mu génn mu génn rek ñu ne ko kirtib mbaal ko rek mu ree ñu génne ko géej gi di ko yóbbu ci Suleymaan mu gis benn waay bu doon ut or dox ci àll bi ba sonn toog ci benn garab di noppalu mu gis waa ji rek reetaan ñu indi ko sànni ko ci kanamu Suleymaan mu reetaan ñaata yoon la ree Suleymaan mu ne kii la ñu ne ko waaw mu ne bi ngeen ko jàppee léegi lu mu fi def jinne yi ne ko reetaan na ñetti yoon mu ne jinne ji yow sa premier reetaan bi lan la mu ne ko man fukki at yi passé li fi xew yëpp xam naa ko fukki at yi ñëw li xew yëpp xam naa ko at bu nekk benn yoon la ma yàlla may may génn waaye lu doy waar mooy xaw moon tey dañ may jàpp looloo tax ma ree te fukki at yi ñëw yëpp xam naa li xew waaye xaw moon ne tey dañ may jàpp gis nga li la yàlla ne laa yaalamul xayba man fi samawati wal ard illallah yàlla rek moo xam kumpa wala moom xamul tey dañ koy jàpp ak ni mu réy ak ni mu amee xam-xam ñu ne ko ñaareel bi dégg nañu rey nga bi nga gisee benn waaye bu toog ci suuf garab mu ne waaw waajooju dafa yendoo wër or ba sonn or rek lay wër jaaykatu or la day dem rek di toj montagne yi di gas di génni mu ne mu sonn tey amul dara mu sonn toog di noppalu te ci kaw or la toog mu ne loolu laay ree mu ngi toog ci or di noppalu di ko wër te xamul ci kaw or la toog ñu ne ko waaw yow bi nga ñëwee ba fii ñu sànni la ci kanamu Suleymaan da ngaa reetaan mu ne waaw waaw damaa reetaan kay ñu ne ko lu tax nga ree mu ne lu tax ngeen indi ma fi Suleymaan ne ko sama doom moo feebar ma bëgg ku ma wax lu ko faj ñii ñëpp ñu ne xamuñu ko ñu ne yow yaa ko xam mu dañu jàpp la indi la fi mu ne garab gii nga toog fii mu tiim la juróom fukki at yi yëpp mooy faj sa doom ji jaral ngeen ma doon jëli ñu bàyyi ko mu dellu moo tax yàlla mu ne suleymaan mayoon naa ko ay jinne yoo xam ne dañ koy liggéeyal ci lu ko neex yaamaluuna lahu ma yacha min almaharib wa tamasil ay soororu jàkk ak ay estati yoo xamante ne përëm lañ ko doon defee jinne yi ñoo daan dem ci biir géej gi xuus daal di koy génne ay verre gis nga ba muy ba muy ba muy takk balqiis buuru saba di yónnee turun bi sées bi mu daan toog nañ ko ko indil château bi mu tabax moom Souleymane pour ndaw si seetu ci château bi ci biir géej gi lañ ko tabax lan lañ ko tabaxee ay verre ndaw si bi mu ñëwee yéeg ci dugg ci biir da doon yëkkati yére yi dafa ne day tooy gars yi na ko déedéet lii verre la du ndox du la laal kon ngeen xam ne kon yii ngeen di gis tey nit ñi di ko def daanaka dañ koy répété waat rek mu soon na am ci àdduna sunu borom subhanahu wa taala ci kattan googu mu may Suleymaan mu ne wal jifaan kal jawaad may naa ko moom Suleymaan ñu koy defal ay cin yu ngand yoo xam ne wala ay sangukaay yoo xam ne ni mu réyee kenn mënu koon misaal nga xam ne lii doomu aadama dana dana lott pour defar ko il faut mu am lu mu jàppandikoo pour loolu mën a nekk ak ay cin yoo xam ne kenn xamul nun toll ci rëy lii yépp nag yàlla may ko yàlla mu ne ko i'malu ala daawuda shukran yéen waa kër daawud ngallawaay sant leen yàlla i'malu liggéey leen ala daawud yéen waa kër daawud waaye shukran sant leen yàlla nit nit ñi bu leen yàlla mayee dañoo war a sant yàlla tey rek ngay gis nit yàlla may ko mu naan liggéeyu ndey ak liggéeyu baay ak bañ ma sangeek ba ma demee guy gaak ba ma sëñ bi ñaanaleek fekk yooyu ay caaxaan kese la yàlla bu la mayee da ngaa war a sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbik nit day sant yàlla ci li ko yàlla may yàlla bu la mayee wér santal yàlla nga xam ne am na lu la yàlla may am na ñu feebar ñun tey dañuy gis koo xam ne amul dépasse rek wala amul dara rek soo ko nee ça va mu ne sénégalaisement mooy baaxul pourtant ça va de saa yoo taxawee sa buntu kër di nga gis koo tane ñun ñi toog fii ci jàkka ji suñu taxawoon léegi suñu buntu kër balaa ñuy julli gée léegi ñu gis koo xam ne ñun ñoo ko tane chaque jour nga ti yàlla dagal la ci bët yaa ngi gis yow ñaata nit ñoo gisul ci dëkk bi amul yaa ngi dégg ñaata nit a déggut yaa ngi wax ñaata nit ñoo waxut yaa ngi dox ñaata nit ñoo doxut am na ñoo xam ne ndeysaan amuñu ay loxo yu ñu lekkee gis naa wa gis naa ñoo xam ne amuñu loxo loxo yi fii la yem gis naa ko ci YouTube bi gis naa ko ci Facebook gis naa ko ci WhatsApp jigéen joo xam ne tànk yi lay dawalee oto tànk yi lay couché ay doomam tànk yi lay lekkee gis naa ci góor goo xam ne tànk yi lay peñewoo bu lekk jotee kuddu bi ci ñaari baaraam yu mag yi la koy képp ñaari baaraam yi dañoo mel ne tànk yi dañoo dañoo dem ba remplacer loxo yi ah ñaw tànk lay ñawee ñaw lépp tànk la koy defee ñaari tànk yi wala amul ay loxo lépp kay tout tànk yi lañ koy defee xoolal yow yàlla lim la may da ngay sangu sa salle de bain ba set fomp ba rafet diw ba neex parfum sol sa yére génn di dox ni mu la neexee am na waa joo xam ne bu sangoo pare ak yére yi lu mu rafet rafet day diree ko ci suuf ak yére yi mas naa nekk Sandaga ma gis benn waay boo xam ne mënut a dox day périer périer nii lay def vir vir vir day périer allahu akbar ah gisoon nga ko waa ji day périer waxuma day raam de day périer laa wax nii lay def nii di dem bu dalee fale delluwaat noonu lay doxee allahu akbar xoolal kooku xoolal yow li la yàlla may kon nit ñi war nañu sant yàlla mu ne waqul naa lahum man yàlla ma ne bi ma leen mayee lii ñëpp nag ma may baayam mu nekk yonent may baayam mu nekk buur moom mu judd moom Suleymaan ma may ko mu nekk yonent ma may ko mu nekk buur waaye ma may ko mu jiite adduna bi yëpp waaye ma may ko ay jinne yoo xam ne dañuy ànd ak moom yii di ko tabaxal yii di ko dugal ci biir géej di ko indil lu mu soxla lii lépp nag après ma ni ko sant ma nag uskuru ya ala daawud uskuru rabbakum ala hadihi niam aljalila sant leen yàlla ci xéewal yi leen may xéewal yu màgg yi faqad xassakum bil fadli al azim wal jah al arid yàllaay ki leen jagleel daraja bi taraanga bi xéewal bi yàlla mooy ki leen ko may kon doomu aadama bu ko yàlla mayee yàlla bëgg na gis xéewal googu ci moom muy jeexital inna allaha yuhibb yàlla bëgg na bu mayee doomu aadama xéewal an yara asaru ni'amihi ala abdihi mu gis xéewalu jeexitalu xéewal yooyu ci nit ki bu dee yére la yàlla na ko gis bu dee lekk la nañ ko gis bu dee naan la nañ ko gis bu dee waruwaay la nañ ko gis bu dee tëdd la fi ngay tëdd nañ ko gis bu dee kër la nañ ko gis xéewal gi la yàlla may nga def ci loo xam ne ku ñëw dina xam ne ah kii de sant na yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu ne waamalu bi taatillahi shukran lahu jalla wa ala yéen waa kër daawud ngallawaay lii yàlla may leen jëf leen ci ak topp yàlla yàlla bu la mayee alal jëf ci topp yàlla yàlla bu la mayee wér jëf ci topp yàlla sëriñ bi dafa mos a dajale taalibe yi mu ne leen ndax ku yàq dugub nekk fi ñu ne ko dugub kon moo koy yàq ni ñu koy amee bu ñu ko bayee jële ko ci àll ba def ko indi ko ku ko yàq mu ne waxuma loolu de ñu ne ko loo bëgg a wax mu ne reer ba suur dem mooy yàlla loolu mooy yàq dugub nga lekk ci xéewal yàlla bi ndékki ba suur ñu yaakaar ne da ngay jaamu yàlla nga dem moye ko yàlla nga añ ba suur ñu yaakaar ne da nga koy jaamu yàlla nga dem moye ko yàlla nga reer ba sa biir bi ne kekk ñu yaakaar ne da ngay jaamu ji yàlla da ngay fanaane naa fi la guddi nga dem fanaane ji soirée ba loolu mooy yàq dugub yàlla dafa bëgg lu mu la may mu gis mu jeexital ci yow nga topp ci yàlla nga sante ko yàlla tabaraka wa taala aaya bi nag li ci gën a doy waar yàlla tëje ko ca suratu saba aya 13 yàlla mu ne wa qalilum min ibadiya shakur lii nag waxu yàlla la du sama wax yàlla ne na sama jaam ñi néewum na ñu ma ciy sant wallahi alazim loolu lu am la wa qalilu néew na min ibadiya ci sama jaam ñi ñi nga xam ne maa leen bind sàkk leen néew na ci ñoom ashakur cantaakoon moo tax gis nga Sénégal duñ sant yàlla dañuy sant diw sant diw rek ngay dégg ci rajo yi est-ce que yéen ñi toog fii mës ngeen gis ay baas yu ñu baas ngeen ne lu xew fii ñu ne yàlla la ñuy sant man de gisaguma ko ba ma juddoog léegi samay at nag bëreegul ma romb ab baas rek lu xew fii ñu ne yàlla la ñii ne nañ yàlla la ñuy sant gisaguma ko wala ma gis kenn koo xamante ne looy def fii yow mu ne yàlla laay sant yow looy def ci jàkka ji yàlla laay sant yow alxuraan bii ngay jàng damay sant yàlla yow koor gi nga war damay sant yàlla man de gisaguma ko pour moo tax yàlla nee na néew na ci sama jaam yi ñu may sant yàlla day maye lu ne gañ ñu bàyyi ko fi sant keneen moo tax mu ne tribunal bi gën a rëy ëllëg man ak nit ak ginne la ana wal ins wal jinn fii nabain azim ñu ne yàlla lu waral nga taxawal tribunal boobu mu ne axluqu man yàlla maa bind wa yubadu xayri ñu jaamu keneen ku dul man wa arzuq man yàlla ma wërsëgale wa yuskaru siwaaya ñu sant keneen allahu akbar yàlla bind ñu jaamu keneen yàlla wërsëgale ñu sant keneen waaw loolu moo fi am moo tax yàlla mu ne néew na ci jaam yi ñu may sant wa qalilun min ibad man yashkuru llaha ala ni'amihi néew na ci jaam yi ñuy sant xéewal yi leen yàlla defal pourtant xéewal ñu bëri ci ñun dañuy yaakaar ne xaalis la rek bu ne gàññ moo tax alquran ne wama bikum min ni'matin fa min allah wala wama bikum la wax li ngeen yor li nekk ci yéen min ni'ma ci xéewal fan la bàyyee ko mu ne fa min allah te mu ne xéewal yooyu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen ko doon bëgg a wàññi du ngeen ko mën daj fii may wax nii wax ji may wax nii dafa neex ci yéen de ah dafa neex lu tax mu neex leen koy dégg boo taxoon kan ci ñun fii moo mën a fay yàlla dégg nopp bi benn nopp bi li muy dégg kan ci ñun fii moo ko mën a fay yàlla nekk ci loxoom benn nopp bi rek li muy dégg waxuguma beneen balaa ngay xam ne nopp bi ni ngay dégg neex na mu amoon problème léegi nga commencé dem hôpital di jënd ay garab di def ay analyse ngay dem ñuy rajo nopp bi di ko luqarti di ci diw ah xoolal naka noonu bët bi lii ñuy xool nii kan moo mën a fay yàlla facture yi boo xooloon ba ngoon nga bëgg a tëdd malaaka ñëw ne la maa yor bët yi nga ne ko waaw mu ne li nga yendoo fay li nga yendoo xool fayal mi ngi nii bind naa ko ngay calcul ki yor nopp yi ñëw ne la da ngay fay de nga naan waay ki yor ngelaw li ngay nooyi ñëw ne la ah li nga doon nooyi tamit moo ngi nii de ngay dajale facture yi ki ñëw tànk yi ñëw ne la li nga yendoo dox kon nooy def lii yëpp ñu wax kan moo ci mën a fay yàlla dara kon yàlla xéew li ñu defal mënuñu ko wàññi lekk bi ñuy lekk nga lekk ko mu rees ku ci mën a fay yàlla nga soxla mu génn nga dem rek ay seconde mu génn nga defaru ba rafet génnaat mel ne du yow kan moo ko mën a fay yàlla su fekkoon da ngaa bëgg mu génn yàlla mu ne ko eh bul génn toogal foofu rek dañ lay yenu yóbbu hôpital soo demee nga fay xaalis pour ñu génne ko soo mënta gis da ngay dem nga fay xaalis pour nga gis boo mënta dégg da ngay dem fay xaalis pour nga dégg soo mënta wax da ngay dem fay xaalis pour nga wax boo mënta nelaw da ngay dem fay xaalis pour nga nelaw fi mu nekk ni yàlla xéewal yi ma la defal te doo fay yëpp boo ci mënul da ngay dem fay pour pour nga def ko xoolal nit bëgg a dem duus sax mënu ko mu dem fay xaalis pour dem duus wala gisu leen ko ah vendredi bi passé xaw ma ba ca tegu nit indi na fi ordonnance boo xamante ne ordonnance doomam la doom ji dafa judd amul fu mu demee duus ginnaaw ginnaaw gi dafa fat fii lañ xar fii dañuy xar fii defal ko fi tiwo fii lay demee duus fii fii lañ génn boutique bi def fi benn tiwo fii lay demee duus xoolal xéewal gi la yàlla defal allahu akbar ak foofu ni ko yàlla defaree nga xam ne xoolal bët yi bi ngay xool ban problème nga am xoolal bakkan bi bu muy xëcc ngelaw gi fi mu nekk nii boo amee problème mu sax ngelaw rek da ngay dem jënd mentalato moo gën a tuuti ubbi commencé loqarti xoroj xoroj xoroj di dugal ñu naan la la man kay temps yi nga commencé gis nga mentalato gën a tuuti sax da ngay dem jëndi ko allahu akbar sunu borom mooy ngand sunu borom du moroom bëri bu amee problème léegi nga daw jëndi tuufaay wala moo tax xoolal lu nekk da ngay dem te fi mu nekk nii xoolal dara dalu la jëndoo dara yaa ngi xool normal yaa ngi dégg yaa ngi noyyi yaa ngi wax yaa ngi dox yaa ngi nelaw yaa ngi yeewu nelaw sax boo ko manqué da ngay dem ba da yàlla mu ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah xéewal yi ngeen yor bàyyeewakul ci Masamba bàyyeewakul ci seen i ndey bàyyeewakul ci seen i baay bàyyeewakul ci seen i maam bàyyeewul ci kenn ci kan la bàyyee ko ci allahu jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu ne xéewal yooyu nag su ngeen ko doon lim yor big di ko bind leen di sonal seen bopp waaye mënu leen ko ndax benn bi rek mënoo ko mënoo ko jeexal benn bi benn bi rek benn bët bi rek xéewal gi la ci yàlla defal mënoo ko benn bët waxuma la ak nag sa cër gi yëpp waxuma laak njaboot gi la yàlla may waxuma laak dund bi la yàlla may waxuma balaak liggéey bi ngay liggéey waxuma laak am am bi nga am waxuma laak li gën a rëy loolu yëpp mooy mooy wér gi nga am wér allahu akbar xoolal wér ndeysaan ñaata nit nga xam tey yu tëdd hôpital ñoo xam ne mënuñu dara las lañ def las tëdd dañ leen di yëkkati di leen wëlbati am na ñoo xam ne mënuñu sax ŋàng dañuy lekk bi dañ koy def ruy def ko ci pikiir pikiir ko fenn rek mu daal di dugg ñoom du ñu sentir sax ne seen pikiir lañ leen di lekkalee pikiir yow léegi boo fi nekkee ba ñu liggéey da ngay dem raxasu ba set ñu tegal la ci table tegal la ñaari ndox ndoxum raxasu ak ndox boo koy yelandee tegal la serviette tegal la plate bi ah nga naan merde li li amu xorom mais li neexul di di gàññaka ak di sikkal ak di ayibal benn waaye ngi ne siiw jot ci ndeysaan dañu doon añ ak benn borom xam-xam bu mag moom nag day daanu leer quoi waa góor googu yal na ko yàlla yërëm day daanu soo waxee dara lu dem caala rek góor gi day daanu ñu tegal ñu bool bi ni ñuy añ ba caag rek benn waaye mu ne ceeb bi neex na rek góor gi ne laa ilaha illallah daal di daanu dóor fépp ñu yëkkati ko mu toog ñu ne ko góor gi lan la mu ne damaa xalaat ñi ko amul bi kii ne ceeb bi neex na mu ne mu ne damaa xalaat ñi ko amul non moom dafa sori woon day daanu par seconde mu jógi su toogee fenn comme miir bi nii dañuy indi ay njaganaay yu bëri teg ko nii balaa muy daanu di gaañu yal na ko yàlla yërëm mbokk julli yi sunu dars tey foofu la jeexee ñu ñaan yàlla mu def suñu ndégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa